di ñaan suñu borom tabaraka wa mu bàyyi fi suñu kilifa gu mag gi mu yàgg fi lool ànd ak ak wér ba mottali yéeneem yi mu am ci diina ji yëpp ak yi am ci lislaam li am ci yoon wi xam nañ ne lislaam diine la joo xam ne dafa matale lool lamboo lépp jaam bi li dox diggante ak boroomam di ay jaamu yàlla ak li dox diggante ay moroomi jaamam ni moom yooyu yëpp lislaam da làmboo te da koo teqale jaamu yàlla yi nag am na ci yoo xam ne xol lay laal am na ci yoo xam ne jëm ji moo koy def am na ci yoo xam ne alal yi nit ki moo koy def ibadat xalbiya ibadat bananiya ibadat maliya yi nga xam ne nag xol moo koy def lu mel ni sellal ak wakkilu ci yàlla ak ragal ko ak yaakaar ko wala yi nga xam ne yaram moo koy def lu mel ni julli ak woor ak yeneen yi ci des ak nag yoo xam ne moom alal la koy def lu mel ni saraxe ak joxe sa alal ci yoonu yàlla ak asaka ji nga xam ne moom moom la yàlla farataal asaka jooju nag moom moom ci lañ toll moom lañ bëgg a waxtaanee ci waxtaan wi lu ci xaj leeral atteem ak lenn ci ay xikam yi nga xam ne moom la ci yàlla dugal ak lenn ci ay atteem xam ne mboolem diine yi nga xam ne mas naa wàcc ci kaw asamaan ak yeneen civilisation yi am ci adduna bi yëpp ñoom ñëpp dañoo mas a itteewoo mbirum way ñàkk yi ak ñi néew doole ñëpp di def ay pexe ngir wàññi seen métit métit yooyu waaye ngir woyefal seen wànce yooyu waaye nag ñoom ñëpp kenn mosu cee àgg ci nag Euh, def ca li ci lislaam def ndax ñoom ñëpp lañ ci daan woote mooy rek di xemem loo nit ñi ci luy tax ñu dimbale ku kuñ tane di leen ca jox ay dikk yoo xam ne mën naa tax ñu xemem ko wala di leen ci jox ay tëkk yoo xam ne mën naa tax ñu euh, bañ koo bañ koo bañ koo def bañ koo def waaye kenn musu ko cee farataal nag lu dul ne lislaam mi nga xam ne moom bi mu dikkee loolu ñu doon def di ko coobarewu ngir xemem ab yool yool saam nag moom dafa ne waxuma yool bi waaye léegi dama ko farataal ci yéen yooyu ñàkk yi dañoo am ab àq ci alal yi ngeen yor ak joo xam ne du may du sarax du lenn waaye àq la joo xam ne dama ko faratal ci seen alal yi ngeen war ko génne jox ko woy ñàkk yi te loolu fu ne ci alxuraan rek euh, feeñ na fa ci ay aaya yu baree bare bare bare bare wa aqimu salaata wa aatu zaka xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha waaw yooyu yëpp ay aaya yoo xam ne euh, la muy junju wala la muy wax mooy rek wane na yàlla farataal na asaka ci alali jullit yi ñu war koo génne jox ko ñi ko yayoo yonent bi sallallahu alayhi wa wax ko ci addis yu baree baree baree bari ba ci gën a siiw mooy bu neel islaamu ala xamsin boobu lislaam ñu ngi ko tabax ci juróomi ponk bokk na ca ponk yooyee muy génne asaka jox ko ñi ko ñi ko yayoo mboolem borom xam-xam yi tam ci li jiitu ak li li li teew lépp kenn mus sa werante wala kenn mus sa wuute ci ne asaka moom farata la joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko waral ci jépp bépp alal wala bépp alal boo xam ne sarte ya daja na ci moom sunu borom tabaraka wa taala nag niñ ko faral di waxee toujours saa bu farataalee dara léeg-léeg mu wax ay njariñ yoo xam ne moo tax mu faratal ko ci nit ñi lu ñu leen mën a andil ci seen adduna ak lu leen mën a jural ci seen alaxira yooyu nag asaka am na ci lu bari ba njëkk ci li nga xam ne mooy xikma wala xikam yi nga xam ne asaka am na ko ba ci njëkk mooy xeex ñàkk ak woyafal wañse gi nga xam ne way ñàkk yi ak ñi aajowoo se nañ ko maanaam mu wàññi ko xeex ñakk xeex ñàkk nag amul benn diine boo xam ne mas na koo xeexee farataal eh, ab xaaj ci alal yi ne nañ koy jox ñu ñàkk diine yëpp dañ ko doon xemem lu rek waaye lislaam nag moo dikk farataal loolu ci alal yi jullit yi ba ja des mooy ñu mu dox diggante ak alal yi yam ci woy ña am la yi rek ñi am rek alal ji dox nekk seen diggante ñu di ko awante ku noppi jox sa morom wooy ñàkkee ñoom bokkuñ ci waaye dafa bëgg alal ji yàlla wàcc ci àdduna te ñëpp bokk ko ñu séddale ko ba ñëpp eh, am ci kenn ku nekk la ci yàlla jox ñu jox la ko yàlla mooy amale mooy ñàkkale waaye ñi mu amal it da leen li ma leen amal moomu leen ko man maako moom waaye joxal leen ma ci ñii ma xañ nag loo xam ne seen walla la ci jokkaloo boobu maanaam alal ji yem ci ñi ñàkk rek sunu borom tabaraka wa taala daf ko daf ko daf ko tudd ci alquran kay laa yakuna dawlatan bayna al aghniyaa minkum alal ji war dafa war a circuler dafa war a dox ñi am ak ñi amul ñëpp di ko weccante kenn ku nekk di ci am lay sa lay sa àq ndax alal yàlla la yoo xam ne moo ko jox ñëpp huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian yàlla moo bind suuf si li ne ci suuf si lépp doomu aadama la ko bindal jamian jooju mën naa doon mën naa dellu ci suuf si mën naa dellu ci nit ñi li ci suuf si lépp yéen laa ko defal maa leen ko bindal waaye yéen ñëpp laa ko bindal tam jami an xalaqa lakum jami an maa fil ardi jami an yéen ñëpp laa ko bindal loolu nag tax na sunu borom tabaraka wa taala farataal asaka nag ngir alal ji bañ a yem ci ñi nga xam ne ñoo am am alal rek ba ca des mooy day laabal bakkanub ki koy génne di ko sellal jëmmi génne asaka ci boppam ki koy génne da koy laabal lu koy laabale mooy taq-taq yi nga xam ne moo nekk ci nay ak bëgge yooyu yëpp daf ko ci daf ko ci laabal ndax yàlla sunu borom tabaraka taala moo bind doomu aadama def ci moom nay mu bëgge lool wa uxdiratul anfusu shuhha waaw yàlla ne nay moom dama koo def ci doomu adama mu mel ni ab tabia ci moom waaw waaye nag nay googu nag ku fexe ba génne ko ci sa bopp ku fexe ba setal sa bakkan nag yàlla nee na sunu borom tabaraka taala yow yaay ki taxe wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kon day laabal bakkanu ki koy génne di ko sellal ci bon bon yi nga xam ne bokk na ca nay ak bëgge ba ca mooy day laabal ki koy jël sax asaka ki koy jël sax nga xam ne moom lañ koy jox du yem ci rek feesal poosam waaye da koy laabal ab xolom lu koy laabale ci ab xolam mooy da ciy génn kañaan ak bañeel ak kañaan ak mbañeel yépp da koy génn ci xolom ndax du du añaan ki am alal ki ñàkk du ko añaan waaye daf koy bëgg te daf koy ñaanal sax ndax lu sax mu da ko bëgg di ko ñaanal mooy xam na ne moom saa bu kii amee rek man ma am ginnaaw bu bu amee génne asaka saraxe kon li mu am lépp maa ngi moom ñoo ko bokk saa bu ko génnee rek man it dama cey bokk saa bu ko amee man it dama cey bokk kon te koy ñaanal di sopp di ko ñaanal te loolu nag mooy li nga xam ne moo war a dox diggante jullit yi bu ko defee cofeel ak bokkoo day dox seen diggante dara loo xam ne lu lu ñaaw du du du am seen diggante loolu la sëñ Tuubaa di wax sallallahu taala ci masaliku jinaan fii agtinaamunaa duaa al fuqara ma al masakini liman qad sabara nee na saraxe ak joxe asaka day tax ñi ñi ñàkk di ñaanal ñi am ñi ñàkk di ñaanal ñi am seen yëf gën a dolliku ndax ñoom it lañ ciy am gën a dolliku loolu lu am solo la loo xam ne war nañ ko bàyyi xel ba ca mooy nag asaka moom jëmmi alal ji ci boppam nag daf koy yokk daf koy daf koy dolli euh, joxe asaka day dolli asaka day dolli day dolli asaka ji day dolli alal ji gën koo euh, ful ko gën koo dolli ndax day mel ni boo xool ci saayir joxe asaka day wàññi alal waaye bu boo ko xool ci biir nag da koy dolliwaat day dolli alal ji da cay wàcc barke mboolem catastrophe yi nga xam ne day dal alalit it yàlla aar la ca yàlla musal la ca ba nga ba nga mucc wa ma ataytum min riban li yarbu fi amali nnaas fala yarbu inda allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha allah fa ulaikumul mutifun rabbana tabaraka allah moo ko wax li ngeen lu ngeen lu ngeen jëfandikoo ci riba rek loolu dama koy wàññi waaye lu ngeen jëfandikoo ci azaka nag loolu dama koy dolli dama koy ful ba mu nekk lu ëpp lam doonoon yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maa naqasa maalun min sadaqa maa naqasa eh, maalun min sadaqa nee na asaka du wàññi alal mukk muk bu ko wàññee ci saayir ñu di ko gisit la ci biir moom da koy da koy yokk waaw man adda zakata maalihi zahaba charruhu mboolem ay yi nga xam ne bët wala làmmiñ wala lu nekk lu doomu aadama mu mën a mën a dab alal ci ay catastrophe nee na boo génnee asaka loola da nga aaru sunu borom tabaraka wa taala daf la cay musal kon loolu lépp mbir la yoo xam ne mi ngi ci biir asaka ci ay xikamam ak yoo xam ne mi ngi koy euh, daan génn asaka dana ko joxe euh, sunu borom tabaraka wa taala nag loo ñu lool ci ñàkk génne asaka ñàkk koo génne am alal ju mat a génne asaka te génne woo ci asaka sunu borom tabaraka wa taala wax ci tëkk bu réeréeréy boo xam ne tëkk weesu ko ko wallazina yaknizuuna zahaba wal fidda wala yunfiquuna fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim nee na ñu yor alal dañ ko ko rek dañ ci ko bañ koo jox kenn nee na nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen bëggal a ngi leen di xaar yawmal qiyaam yawma yuhma alayha fi naari jahannam fa tukwaa biha jibaa'uhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizuun lii bu yawmal qiyaama nee na dañ koy def ay bol day weñ tàngal ko ba mu tàng ñu di leen ko daaf ci seen wet di leen ko daaf ci seen i kanam di leen ko daaf fune ne lii mooy alal ja nga xam ne moom ngeen dencoon te jox leen ko ñi ñi ñi ko yàlla jox joxloo dellu waxaatit moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ci benn hadis boo xam ne bu gudd la ne walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al qatra min as-sama walaw la al bahaim lam yumtaru